ak ki ñu wóolu liggéeykatu yonent bi boo nee yàlla ni yonent bi ni xaadimu rasul leneen loo waxati ci biir lay dugg fii liñ fi war a wax lañu fi wax liñ doon wax wax nañ ko ci suba li xale yi doon junji donte ci nasaraan la itam daanaka amul wax ju ci dolliku xanaa fàttali ne àdduna ñetti fan la démb tey àllëg li xewoon démb lan moo ci rafet te ñu war a fexe muy gën a rafet lan moo ci baax te ñu war a fexe muy gën a baax ñoŋal ko lan moo koy ñoŋal lan moo ci baaxul mbaa lan moo ci rafetul te ñu war ko moytu ñaari baat yi moo am saytu ak moytu li ngay saytu mooy li ñu taamu li ngay moytu moy li ñu taamuwul ndax li muy yàq kon la waxkat ba wax dëgg la àdduna ñetti fan la démb tay ëllëg tey dañuy setantal démb lan moo fi xewoon ni ma ko waxee léegi li baax te am njariñ war a yokku bilax safaan ba wërta répété ndax wërta yokk waruñu ko yokk waruñu koy fàttaliku bu na defee loolu ci tey synthétiser la xewoon démb ñu xool tey interpretation bi may def mooy fi sabaahil yawm fi mi tey ci suba ci màggel li fi xew ak li nu wax ba tuddaale yi li ñuy tudde kuréelu xarnu Cheikh Bass Abdou Khadir léegi la fi jóge am na lu ma ko wax mu war koo wax ak kilifa ga loolu defe naa bu ndemee ba ca kanam ñëpp dinañ xam lan la tey dañuy màggal màggal nañ ci suba di màggal ci ngoon gi di màggal ci guddi gi muy ñetti temps yi lépp génnul yàlla génnul yonent bi génnul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye ñu war a waajal ëllëg ndax tey léegi timis jot léegi ñu nodd kon ñu war a waajal ëllëg ëllëg nan lan koy waajale nanu ko tedd ki waajale ba def nu ni mënu def nanu ko tedd ki waajale ba def nu ni mënu def tuddee nu ay muridiin ba noppi ni nu uri li wacci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila def na ay murid ba noppi nag def na ñetti xaaj ñetti catégorie murid kepp ak murid sadiq ak murid sadiq wa nabil bi ma mujj wax kii sama wet ci la bokk ndax bu fekkente ne mën nga jàng xasida rek te koy settantal ci diggante temps ak espace ci fasaha kooku mooy nabil uy yooyu nag pluriellement ñooñu la ko tedd kiy wan yoon wi ñoo koy wan yeneen ñaari murid yi ci des na ma ko waxe woon ci suba rek foo nu fekk ñetti catégorie lañu nan fexeet bokk ci nubala uyi lu vague la nag intelligence dafa vague bu ñu koy wax positivité tax waaye waxuñu négativité taxu du ma ko guddal ndax li ma waroon a wax xale yi wax nañ ko te ku déggul ni ñu ko waxee itam ku ko dégg bu la jegee boo ko laajee mu leeral la ni la lii la ñu wax man dama koy tënk rek mooy réew mi daal unité bi fi war a am sur le plan politique nag laay wax mais politique de vérité moo xam référendum lay doon moo xam leneen lay doon élection yi bari na tegaloo na li ciy xew ci ay caaxaan bari na yooyu yëpp nañu fexe xewal lu bees nañu fexe xewal lu bees moo ne lu mën a nekk la Sénégal mën naa xewal lu bees loo xam ne day yéem ñëpp te du tax ñu tudd république islamique xam nga Arabie Saoudite république islamique la ndax lii xew ci réew yi ndax gis ngeen mu xew fa dañuy tegtaloo ci wax yàlla loolu moo tax waaw lu ko nuru bu fa xewee itam ngelaw lay doon dafay romb jàll waaye ku na gis na nañuy dundee ay xulóog xeex ak politique ak opposé woo ngi xiiroo ka ŋaayoo amu fa ñun nag ñu war a dem ci mat la bu ci fay dellu ci la ko tedd ki ba mu ne boroomam waccal xulu banaa ala tawadudi wax naa ko suba bila tana zohin la ca teg wala di la ca teg wala taxasumin la ca teg wala tadaaburi la ca teg ñun senegal bu ñu amee problème ñoo ko yóbbee sunu bopp léegi nag xanaa luy jot jot na ah ba Cheikh Bass dem ci Serigne Mountakha la ma ko wax du ma ko wax ci rajo bi waaye li ma leer mooy dina ko dugal ci nopp sëñ bi Serigne Fallou mais ñu ngi koy gërëm bu baax dafa bokk ci xale yi nga xamante ni bi wax dëgg yàlla bu leen ñëpp royee waaw leen ñëpp royee waaw léegi moom pas-pas bi gën a dëgër léegi say wi gën a rëy loolu moo tax dañu leen di sant nag yéen ñi donte màggal gi moo leen indi itam waaye fii ci pàkkub Seydina Ousmane bi faw ñu sant leen fii yéen ñi nga xamante ni bii yéenay tas xibaar yi eh, am na nu ñu ko bëggee woon xaj na daa wërta doone noona fii xaj na soowu la war a doon moo tax rendez-vous bu soowu lañ leen koy jox li nga xamante ni bi mënuma koo ñàkk bañ a wax daal ñi nga xam ni ñooy politique ñu nekk ci pouvoir ak ñi opposé wu yëpp nañu jéem a ànd doon benn ñu tas parti yëpp ñu tas parti yëpp def un parti national un parti pour tout le monde waaw képp ko am xam-xam ba noppi ñuy passé ñëpp examen rek ñuy passé ñëpp examen waaye coow lu bari na xëccoo bi bari na ku nekk bëgg a doon chef loolu mënut a nekk ku nekk bëgg doon chef loolu mënut a nekk parti yu bari yee waral amul ci benn adduna amul fenn fenn ci adduna bi réew mu am matul million millions d'habitants am ay téeméeri parti loolu daa am fenn ah caaxaan yooyu nañ ci jóg moo xam référendum lay doon moo xam lu muy doon waaw walla ñu ñëw ci parti Serigne Touba ñëpp. ñëw ci parti ku tedd ki parti yëpp tas ñu ñëw ci parti ku tedd bu boobaa nag lañ doon xam bu ñu amoon bu ñu ñemee woon mbaa ñu comprendre loolu Macky moo am majorité fi ñu toll à l'Assemblée nationale bu ko neexoon loolu am jarul ay référendum ak dara na ko wateelu rek ni parti amatul c'est fini parti amatul parti Serigne Touba moo fi nekk rajawtun xiyaadal hizbi lillahi wahdahu bi xatti lazi yuhyi bihi xayru islam cey bu ñu ko ñemee bu ñu ñemewoon loolu adduna bépp di ko coow ñu ne senegal amatul parti benn parti fa am benn parti moo fa am muy parti de la vérité bu ñu ñemewoon lool dootoo gis xale buy sànni xeer dootoo gis xale buy taali pëna dootoo gis takk der buy sànni lacrymogène ñëpp àjjana la ñuy nekk kaso yii dootu am kaso yi déedéet bu boobaa ku ñu jàpp te ngay nekk prisonnier fa ñu lay yóbbu daanaka da noos wasalaam